assalamu alaykum rahmatullahi taala wa barakatuh bokki talibé ñing leen nuyu ci turu sëñ mam Cheikh Fall mi tok mom Cheikh serif Assane Fall mom mam Serigne Fall mi nga xamné moy juru khidmatu mam Serigne Fall di daara bi tuddu ko te yalla ci réew mi ak ci bitim rew serigne baa ci ay ci ñaanal seigne Fall mu seigne Modou Mbenda mi fi nekkal maam Sara Fall sëñ baa ngi ñaan suñ borom yàggal ak dundam wéral ko itam ba li mu bëgg a liggéeyal maam Sara Fall lépp mu def ko ni ko soobee dañu ànd moom moo njootu maam Sara gépp di sàkku mbégteem nag ñaan sëñ Tuubaa sëñ du suñ borom yàggal seen dund wéral ko itam ba li mu lépp mu def ko nim ko soobee tànn koog murid yëpp nag ak njootu sëñ Tuubaa gépp jataay bii tey ndigal lu bàyyi ko ci sëñ du Muntaxaa Mbakke mi fi nekkal sëñ ñëw ci jëwrinu maam Serigne Fall ji di sëñ Fall mu sëñ Modou Mbenda muy bisu sikurlaay boo xam ne sëñ bi da ko santaane bëgg itam ñu def ko nañu ko daan defee ci bis yi weesu yëpp santaane ko itam ci këram gi nekk ci Daaru Minam ñu war caa jëm ci alxames bii di ñëw liggéey boobu nag tegu ci loxol sëñ maam Cheikh Fall mi nga moo jiite kuréel si tudd ko teel yëpp jëwriñ yi toog nga xam ne ñoo ñooy bopp sikar si ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi ñuy toog fekk jataay bi sëriñ bi ci soññe nag ak di ci woote mbooleem koo xam ne sa yaakaar mu ngi ci Cheikh Ibrahima Fall kaddu yi sëñ bi wax yow la koy waxal ndax mbooleem njawtuk maam Cheikh Fall gépp ci seen kaddu lay wax ak mbooleem tuddkati yàlla yëpp nag bis boobu nag sëriñ Touba da koy defloo Cheikh Ibrahima Fall mu dina ko liggéeyloo tax señ bi woote won nak ngir diko soñé ci réew mi ak bitim réew señ bi di soñu bokk tuddu kat yalla yépp ci bunti kër imam Serigne Fall yépp nak fepp tuddu kat yalla nek nga xamné liggéey bi ak ci wat nañ ko daan défé rek nañ ko défé liggéey bi itam coppite gu ko ci am rek moy ci waxtu yi waye nañ ko daan défé non lañ ko défé moy señ Tuubaa Séex muntaha da wax né dafa bëggoon juróom-ñetti waxtu ci suba ñu commencé tour yalla yi ba juróom ñetti waxtu ci ngoon nu ñaan ko te bu mu dagg lu dul ñu dégg ak noddu taaw su noddu gi daanoo ñu continuer si kër si loolu itam bis ba ko jiitoon moom lañ ko defee woon daanaka miin nañ ko waaye itam jëwriñ yi toog kenn ku ci nekk na xam ne bopp ya nga jiite woon di kër ya ba tey kër yooyu ne ñoo nekk sa ginnaaw ñoom nga àndal tur yàlla yi ba waxtu wa àgg su ko defee mbooleem ñi nga xam ne dañoo ay kuréel ci sawu jant da nga xam ne dañoo def fédération boo xam ne kuréel sukkur laahi la tudd maam Cheikh Fall ñoom itam ñoo xam ne liggéey bi ñooy ñu koy tàmbali suñu ko tàmbalee ba yeggal nag incha allah bi kenn ku nekk ci ñoom da nga mën ñaari waxtu ak ñaar fukki minute moom la tur yàlla di diire ci yow su noppee nag bopp yi nga xam ne ñoo ko daa ŋànk ñoom ñoo ciy toftalu kenn ku ne ci ñoom itam wa ña ko daa àndal ñoo ko àndal ci waxtu woowu su ko defee. sëñ bi di soññee ci mboolem bokki tali bépp ñu xam ne liggéey bii kat liggéey bu rëy la boo xam ne sëñ Tuubaa da ko soxla ci Cheikh Ibrahima Fall mu jaaree ko ci ñun sagalee na ko ñu di ko defal waaye bëgg sëñ Tuubaa moom soo xasee bëgg loolu sot na ba noppi jëmmi ñëwal def ko nag dañ la koy sagalee ngir la nga ca doon yàlla nañ ko xam nag ba jëfe ko ni ko sëñ bëggee moo tax sëñ bi nag di ci woote di soññ itam mbooleem koo xam ne yaa ngi déglu yàlla maa ngi ko safoo ci réew bitim réew ndax liggéey bi ku ne mën na cee bokk kenn ku ne xam ne tur yàlla ñi koy def ñoom day yàlla leen ko baax mu ne seen dënn ñu di ko def waaye tudd yàlla nag gémmiñ ko yàlla xar moo tax mu jóg te ñëpp koy def yëkkati ca kaw moo ca am ak ci suuf waaye ñëpp koy bokk di def ñàlla jagleel nag ñu di ko yëkkati ca kaw du caaginu lañ ci am ñi ci suuf dañ ko dul am waaye ndigal moo ci am solo te lii neen ko sëñ bi digalee kon nag suñ baa ngi woo réew mi ak ki bitim réew ñëpp nag ñu bokk xam ne ndigal la ak na na nga ko daan def noonu lañ koy defee bopp yi itam ñi nga xam ne ñoo aju ci kër yi te du tuddukati yàlla yi kenn ku ci nekk jëriñ jën la jiitaloon mu ngi nii toog soo dégloo kàddu yi nga xam ne ndigal la as na ci yow na nga jokkoo ak moom dina la wax moom niñ ko tënkee ak niñ ko waxee népp mu jottali la ko ba nga xamee noonu lañ koy defee sëñ baa ngi soññ nag ñëpp ñoo xam ne juróom-ñett waxtu ci suba bu ko sëñ bi waxee bëggunu benn seconde tegu ci téeg tuntu yàlla kon ku sori la gën ci yow mooy nga fanaan ci dëkk bi koo xam ne itam da ngaa faan ci dëkk bi itam na nga xam ne fu fajar jotee da nga fajaroo sa kër waaxutal si kër sëñ bi li gën nag mooy faan si fa ndax ki ñu koy liggéeyloo bëgg nañ saa bu xëyee rek ak jàmm dégg na ña ca liggéey ba noonu lañ ko fas yéene doxalee waxtu bi ne moom na ko ñaan itam bëgg nañ saa buñ ca tolloo rek foofu la ñuy yeggee suuf ñun ñëpp ñaan ko foofa déglu sëriñ bi nag ñu ngi ñaan sa borom nag yàlla na ñu dimbale ci baaxu maam Serigne Fall ba ni ko sëñ bëggee ñu defee ko ni ba dégg ci jaajëfam ndax liggéey la ba àdduna sépp bokk ñu ko def loo kon nak la cay suñu gar moy deug jaajeuf ji rek señ baangi soñ nak ñi nga xamne ne ñoo bi di xidmatu maam senay Fall bi bokk ak mom mboolem ko ci bokk na nga fan si ci dekk bi fan si ci kër señ bi ñu and liggey bi kenn ku ne la ci sa war gar ñu tel ko wax nga jëfe ji te kenn ku ne mi ngi lay fàttali itam melokan nga xamne mom lañu wara mel mboolem ko xamne ya nga jëm si ci kër señ bi di tuddu ko def yalla na nga bayyi xel ci koddu mi mi nga xamne mom ngay warlo indi ko ci kër señ bi kenn ku ne itam na nga ko waaj wàccaay woo xam ne dañoo xam ne kii di ab Baay waaj waaj woo xam ne ba tudd di nelaw sax ku la tiim di doo xam ne kii di ab Baay Faal la moom nañ ko waajee noonu waaj ko ci kodd mi waaj ko ci doxin wi waaj ko ci waxin wi ndax sëñ bi fas na yéene na mu ko defee woon di Cheikh Amadou taxaa mooy toog déglu tur yàlla yi bokk ak ñun ba tur yàlla yegg waaye xam nga Baay Faal yooyu sikkar nag sëñ waa nekk seen biir deen xool kenn ku ne xam ne ne wàccaay war na ci kenn ku ne war ngaa war melekaan woo xamante ne bi na nga xam ne nii nga mel ci kanam sëñ Tuubaa day dëgg-dëgg nga bëgg ñu ko ci yow loolu nag na ko ñëpp sàmmale te tey itam bu ñu fa duggee ba ci biir itam ñu xam ne barab bi sëñ bi toog nga xam ne ñii dëbbi bopp sikar si ñoo fiy nekk nan demoon lay demee keesu sëriñ bi fi sëñ bi toog ñi nga xam ne ñooy jiite bopp sikar yi ñoo fay dugg ñoom nag am na ab lim boo xam ne ca la war a yem ñi ci des nekk ca ginnaaw di tontu ñiy tontu nag ñoom lañ digal li wër jumaa ji ñu wër ko ba daj wëraat la di kër sëñ waa gi di kër sëñ Muntaxaa ba mu daj ñuy tontante ak ñu nekk ci kanam sëriñ bi di yëkkati foofu nga ne mooy ci kanam sëriñ bi nag ñi fi nekk ak ñi nekk ci bitti benn atte ñoom leen leen def loo li ci am solo mooy jëfe li nit daal fu maa nekk jege ak sore mi ngi ci jëfe ndigal ndigal li rek weesuwut kenn ku ne xam na fa ci war a yem ko fa kuréel bi dañoo tànn ñoo xam ne kuréel bi ci nag ñoom ngay war a àndal mooy lim boo xam ne doo ko weesu dugg ñoom ci biir ndax loolu looloo fa xaj kenn ku ne jàpp na nag lim booba ka dugg ci biir yow mi ci bitti yow la fa nekkal yow mi ci bitti itam yaa nekkal ci bitti ke fi biir li am solo mooy la laa ilaaha illallaah bi bu señ bi ñaanal nu nako ñepp ñëpp nonu te itam la ca dolli te ñu ko yoon wi xamee ko kër gi xamee ko Baay Faal ko ne bàyyi ko xel moy fexé ba boy ñew nga waj ne man mi kan may ndawal maam Serigne Fall li liggéey li señ tuwa ci ndigal li digal maam Serigne lolu kum comme gàllu los nga diko doxé da nga xam ni ngay dikké da nga xam ni ngay waxé da nga xam ni ngay ñi nga xam ni ñom señ bi denk liggéey bi itam muy xidmatu mam ci gis man nga ko laaj li nga soxla dina wax na nga ko war defee ak fa nga ko war defee xam ne ñoom la sëñ bi liggéeyloo ci ñu ñu wax nañ koy defee ak fi ko war defee kuñ ci digal nga xam ne loolu la digal ab Baay Faal nag li yàlla ci moom taal ci murit mooy bu taxee ci kanam sëñ bi mu mel ne am néew fu fu neex sëñ bi la ko jëmale doom fu muy jëmale boppam tur yàlla nag lañ ñu tuddloo geneen kàddu yëkkatiwuñ ko fa bëggu kenn koy wax lenn lu laa ilaha illallah looy wax nit na nga ko ba mu sëgg nga wax ko ndànk sa kàddu mu jóg ci dul laa ilaha illallah ji juñ sëñ bi wax loo sëñ baa ngi ci melokaan woowu yii di soñ ñëpp itam ci teggin yi ñu xamee ñu ni ko ci kër sëriñ bi waxtu nawet nag lan nekk danga waxtu nawet lan nekk nag te ñun muy tawum ndox mbaa muy tawee xel lañ ci yemale faaw lu bëgg seer dina ko def kon kuy ñëw nangaa waaj waaj woo xam ne bu ndeen ba yëkkati muy taw itam nan jàpp ne ndox mi moom daa sikkar si rek waaye yàqulun dara suñu mbokkum sikarkat la ñaan ak moom sikkar si ba mu jeex te doon yàqal dara loolu nag ci wàccaawale kenn nangaa waaj waaj woo xam ne lu mu taw taw da ngay jàpp ne taw bi moom daa sikkar si yéen a bokk sikkar si ba doo tax gën do doo tax bay li ngay def nako ko ñëpp waajal te xam nawet lan nek te kiñ digal tam waxtu yu lan ko digalee te lu mu nu digal dañ ko def kon nañ ci bayyi xel bax ñi nga ñaan nak sëñ bi dim leen xam ba ñun ñep ñu bokk maase xamal na ko na fédération mam Cheikh bi nga xam nak mom la waxon waxoon tam itam ne sawu jant nak ñom ñoy ñi nga xam ñokoy tambali dañ fànte ci kër sëriñ bi bu ñu xé fajar ñoy tambali tur yalla wi ba waxtu wo xam seen waxtu wi mag ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitoon ak ngànk si kat nag doo ko taflante ndax buñ ca noppee sëñ Mor Ndiaye mi nga xam ne itam moom moo nekk ci jiite seexi Cheikh Fall yëpp xam nañ ko dina topp ñoom yëkkati tur yàlla su noppee itam sëñ Daam Ndiaye dina yëkkati tur yàlla su noppee itam sëñ Cheikh Ndoye ñoom baaxoo àndal ci kër yëpp dina yëkkati tur yàlla wi su noppee sëñ Mbaye Fall ñoom baaxoo àndal ci kër Cheikh moom tam dina yëkkati tur wi ba sëñ bi ñaan noonu la ko sëñ bi fas yéene doxalee te noonu lañ ko doxalee woon itam ñu ngi ñaan sa boom nag tey taw tawféex sëriñ bi ak ngërëmal sëriñ bi mboolem ñi nga xam ne itam dañoo ne ci bitti te ñoo xam ne liggéey sëriñ Tuubaa ak Sëriñ Faal leen ñor koo ci xam ne xam nga ne ñi tudd yàlla am nga yéene yi leen ci lépp lépp loo man ci benn na ko def ci indi ko fa lépp laa man ci xeet teraanga itam te man koo man koo def na nga ko def indi ko fa xam ne ñii ñuy liggéeyloo day na nga bokk ñoom teraanga yi yëpp defandoo ko ñoom ba lépp yegg bu ca kenn xeeb dara waa bu kenn yéem dara lolu señ bon nañ ko santaane waxu ñepp ñëpp dégg ko réew mi ak ci bitim réew nak faay tollu na wota nonu li señ bi digla la faaw nañ ko def ko xam nak nag sa bam taw féexal nga bok ci ñinga def da nga sant yalla bax ta day mayu ko dañ ko dimbali ab jam. ñinga ñaan nak ci baaxu señ tok dole mam Serigne Fall yalla noonu señ bi dimbaleel bopam ban def ko ñu ko bëggee barkate mam Serigne Ba mu dina jërë ngeen jëfëti li ab la ci ñun rek ñun ñepp kenn ku nekkit japp ni yow la señ bi jakkar lool sant la Eh, yoon wi mu halal xàllal nañ ci fas yéenee nañ ci fas yéenee jaar rek dab li nu bëgg mbaa li nu bëgg dab no ñu ngi ñaan nak suñu borom yagal no te wëral leen te tawfiixal leen ñu kanam ñu yag seen ginnaw ñuy digle ñuy jëfé ci barké maam Cheikh Ibra di santu baax rek comme ni nga ko waxee rek li señ bi dana ko sagalé rek ay ñu xamni ñun ñëpp mbir soti nga xamni soti na baax na nga xamni la tax mu soti yaa nga ca biir loolu ab taalibe war a dabu te comme sëriñ bi dañu cee boole ba dinu jëfloo la ëpp doole te gën ci ñun mooy ñu bokk ca jëfkat ya ñu ngi sant bu baax nag di ñaan yàlla suñu borom mu ñu ci ak jàmm ci barke maam Cheikh ibrahim Fall yàggal fi sëriñ Muntaxa mu sëñ basiru suñu borom yàggal ko loolu te wéral ko di ko ñaanal sëñ Amdi Fall mu sëñ Moodu Mbenda ak njabootu sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Fall gépp rek ci doole maam Cheikh ibrahim Fall jërë ngeen jëf ക്ഷേമത്തിന്റെ